ji min wi jot na ba tegal juróom benn simili fii ci diwaanu Kaolack Ndangaan ak li ko wër Pape Demba mu ngi noonu Baye Nges bi mu ngi noonu ay maire Ndiaye délégué régional de la Sénélec mu ngi noonu Bou Coumba la président MTA mu ngi noonu Tengel Sow mu ngi noonu Kaolack a noonu arbitre bi siflé na Baye Mandione Bébé Saloum ñu ngi leewtoo ndeyjoor Baye Sen seen ya production montego combat binumel le parrain de la soirée Pape Demba le directeur général de la Sénélec par ailleurs le président du mouvement crème combat de moussi production dirigé par Pambay attention la ilaha illallah Bébé Saloum Baye yi naw nañu jàppante nañu attention. Saloum daan na ko.